te aussi. parce que moom lañ jàpp ne. voilà bon moi je que c'est de la politique. am nañu droit wax ni way parce que Amadou Ba est poursuivi par de ces élections c'est clair. ñoom c'est le point de vue. <laughs> c'est le point de forcément il faut l'égratigner il faut toucher mais il faut se carapacer on est aussi dans la politique affaire bi ça ne sera pas aussi facile ce sera des combats mhm. et ces combats là il faut savoir les les bon si on peut pas les mener c'est pas la peine j'espère qu'on n'ira pas jusqu'au report des élections parce que ñoom jàpp nañ man seen plan audit ngeen ko bu pare xam nga man n'attendez mhm. officiel mais mën na am mais xam nga adduna adduna mënoo mënoo bañ dara on ne peut pas insulter l'avenir où est-ce que ça mène tous les lii am nii ban résultat man mënu ma ko présumer mënu maa wax ni commission d'enquête bi lii lay génne. lii la lii la PDS indi comme mm-hmm. preuve lii la mooy charge yu nga xam ne établir nañ ko. mënu ma ko PDS mi ñàkk candidat bañ a bokk mën nañ comprendre démarche am les recalés mën nañ leen comprendre mais vous ce qui ce que ce que vos rédacteurs disent mooy que ne. Euh, malgré que vous vous avez un candidat da ngeen a parewul pour dem. élection mais mais ñun ñoo gën a pare. ah xam nga li ñuy wax dëgg man tey man suma base. maa ngi si comité électoral yow on sait que voilà mais ñëpp la ñëpp la ñëpp la ñëpp la <laughs> ñun rek ñoo ñun rek ñooy xam ne tey président convoqué na secrétariat national plus de quatre fois ñu ngi régulièrement ñu waxtaan joxe na circulaire pour installer le comités électoraux dans tout le pays ñu ñun ñaa ngi waxtaan pour installer se comités électoraux yi ñun su tey ci bureau de vote yi su man tey suma région en tout cas suma département mhm. pare naa pour déposer suma ñu nga xam ne arrondissement et dans la dans dans euh, chaque préfecture def nañu ko donc nous nous sommes prêts mais nous autant on est prêt autant on, on peut s'engager à des élections autant aussi nous devons respecter les procédures et les textes de ce pays